السلام عليكم Salam alaikum. Salam salam. maa nuyu bonsoir tout le monde

Bonsoir, bonsoir. Mamadou c'est bonsoir. Artidiane Bitei, bonsoir aussi à vous. Niamurus nu aussi. Eh bien, ça va? Lovely Anna. Salam, salam. T'es nelaw amul T'es nelaw amul T'es veillé patriotique là? Dieu Ibrahim. merci en tout cas hein, mashallah, hein, tout le monde fait fait focus Amin, amical amin. Bonsoir Victoire Emmanuel. Victoire Emmanuel Nying, bonsoir. La Fanta Mbaye nuyu naa la. Moussa Diarra yow tamit ziar naa la macha allah nuyu naa leen. Che Banja maa ngi lay nuyu nuyu naa leen yéen ñëpp macha allah. Mhm. nuyu naa leen yéen ñëpp kontaan encore une fois ak yeen di leen nam lu bare bare di am kontaan ci yéen. di bëgguñu waxtaan benn waxtaan boo xam ne du gudd rek waxtaan bu am solo mais boo xam ne du gudd incha allah parce que euh, fi ne nii euh, jamonoy nelaw jeex na ah waa Eva xanaa ñu ñëw Sacré rek teg foofu teg foofu ataaya bi fanaanoo veye ndaxte tey nelaw wóorul <laughs> nelaw wóorul

dilen di am ci yéen contentement bu baax a baax di wax ne live bi li ko waral moy bëgg rek ñun ñëpp ñu nekk sur la même longueur d'onde ñun ñëpp ñu am les mêmes informations ñu mëna am même taxaway bi parce que ñoo bokk suñu way ñoo bokk suñu yéene amna contenté bu baax a baax wax dëgg yàlla ci euh, njaboot gi <laughs> taxawaay bi am na solo macha allah parce que ñepp ngi focus waaw ñepp ngi focus wax dëgg li am solo rek mom ngeen di wax li ngeen di wax lepp combat parce que la démocratie itam wax sa xalaat ci euh, say adversaire politique ci c'est juste que bañ jox dayo bu upp sa dayo yow lolu rek mom ci am solo moy bañ de trop bo waxe dara un ci donc ma ngi am contenté ci sen euh, taxaway bu baxa di ci am li taxone nak ma ne def live bi ñu waxtaan euh tay yeen ñepp yëg ngeen ni euh, ñaari pàcc patch la ba ñett sax première patch bi moy yëg ngeen yeen ñepp ni euh, avocat yi Ousmane Sonko yi suñu candidat le président Ousmane Sonko déposé nañu euh, sen réclamation fi ñu ko wara déposer déposé muy conseil constitutionnel ginaaw bi nga xamee ne ki di Issa Sall nek maire APR nek aussi directeur CDC wax na ci jëm bopam né mom mo joxewul euh, attestation bi ginnaw bi nga itam euh, première liste provisoire bi génn na te ci euh, sunu turu candidat ñu conseil constitutionnel dafa a def limu wax limu def ak candidat yi mom la a def ak ñun moy parrainage ndax suñu parrainage moo nekkoon pièce bi nga xam ne moom la waroon a njëkkee càmbar mënut a romb suñu parrainage di càmbar attestation euh, te xoolul suñu parrainage te bu loolu amee sax attestation boobu mu ñuy laaj ñun am nañu preuve bu wone ni am nañu euh, euh, quittance am nañu preuve bu wone ni am nañu suñu sunu xaalis bi ñu déposé itam encaissé nañu ko maintenant qui téye attestation bi nga xamante ne une formalité administrative bañ ñu ko jox pour bañ ñu téé lolu argument de droit pour xamni day tax accepter suñu candidature ñu demander conseil constitutionnel mu jaar fi mu jaaroon jurisprudence parce que nous, c'est le juge des fonds Nous avons capacité bu fekkente ne administration dafa jël ay kayit euh, kayitu adversaire politique fexé ba bañ ko ko jox ci heure bu mu ko ko war a ba nga xamni ni da koy tardel lolu tardement boobu mënuñu ko imputer ki nga xamni moy candidat bi parce que lolu ma taylé non, té lolu day tax bu mu dans l'avenir képp ko xamni ne da ngay liggéey ci administration té d'accord ak ben candidat bu la nexé nga def wiri wiri hein ah, ba paré conseil constitutionnel suñu recours bi suñu avocat yi déposé teg ko nak étayé ko ma wax lépp nuñ ko étayé mais ci sama tout le monde, jàngat rek dina ko ak ne li li parce que faut ñu ci wat ci wax ji wax ji rek sénégalais yépp dañ koy wax borom xam-xam yi xel yi xam li nga xam jot di am parce que tay nit ñi déposé nañu recours conseil constitutionnel pour recevoir recours bu demb ak à partir de suba ci lay commencé tontu bu ko bu ko neexee mu wàcc ba le vingt mais bu ko neexee suba suba wala gannaaw suba mu tontu ci laaj yi ñu ko laaj te laaj yi ñu ko laaj nag dafa nekk laaj yoo xamante ne xel da ko mën a nangu parce que kii nga xam ni sax moom moo nekk CDC argument bi tax mu ne du ñu jox suñu attestation tegu ko ci suñu xaalis matul de tegu ko ci sunu ci sunu ci sunu ci lenn de xam nga ci lu mu ko teg daf ko teg ci ne duñu ko jox parce que ñun nekkuñu ci fichier bi déjà loolu yoonam nekku ci de un de un yoonam nekku ci waaye de deux bu ci dugalee tamit làmmiñam te yoonam nekku ci li ñu war a xam mooy argument boobu mu wax ne moom moom la jël ba joxuñu suñu attestation te DGE jëloon ko ba joxuñu sunu fiche argument boobu euh, décision de justice daf ko dàq ba ñaari yoon daf ko dàq ba ñaari yoon ndaxte DGE ci lu mu sukkandiku ba ne du ñu jox sunu fiche dafa ni dañoo nekkul ci fichier bi ki ci fichier ministre de la justice ci lu mu sëkkandiku ba génnee ñu fa mooy contumax juge bi dàq na max, juge bi delloo nañu ci fichier bi ordonné na ñu delloo ci fichier bi kon diggante DG ak DAF lu fa amul ci ñoom la ci seen coobare la ci seen bëgg-bëgg kon dañ ci am yaakaar dañ ci am yàkkin waaye recours bi nag waruñ ci am yaakaar waruñ ci am yàkkin ba ñu tëdd nelaw ndax ñun fiñ tëdd toll nii ak fii ñu egg nii ay nelaw eg indi wuñu fi pas-pas bu am solo ak ngëm-ngëm am solo ak yaakaar ju dëgër moom moo ñu fi indi kon nañu fasaat ñetti yooyu pas-pas ngëm-ngëm ak yaakaar nañ ko fasaat ginnaaw sax xam nañu droit ni muy doxee ci réew mi xam nañu justice ni mu jengé ci réew mi mais du téré du taxawat suñu pas-pas taxawat ci suñu yaakaar taxawat ci suñu ngëm-ngëm tay du guddib nelaw ku yoron sa ay dog def ko ku yor sa ay akabar def ko ku yor sa ab xalaat sa ab dox sa ab yaatal sa ab jotali na nga ko def parce que ñepp war nañ xam ni guddib tay gi jëmele ëlëk ak peut-être bis yi di bu fekkee conséquence dem na ba le vent moy bis suñu takali ak suñu bëgg-bëgg bis suñu takali ak Dam, ndam bi takali déjà ak candidature ñu accepté comme muy la candidature la candidature du président Ousmane Sonko mu nek lo xamni nak euh, avocat yi ñu ngi leen di gatch ngaalaamal def nañu seen te waref bu mat euh militant yi tamit def nañu seen wareef bu mat sëkk pare nañu taxaw nañu ñu ngi cotiser ñu ngi leen ci jaajeufal di di joxe copari, di def lu nek pour mën préparer campagne bi mën am mais nak nañu fexé itam képp ku ci réew mi na yëg ne président Ousmane Sonko waree fam nag wàcc na lépp lu mu mënoon a def def na ko jamono jii ñu toll moom amatul benn jéego bu mu mënati teg moom jéego yépp yi mu waroon a teg moom teg na ko ànd ci ay avocat def na demande de candidature am xeex na ko utiliser na xelam utiliser na xalaatam utiliser na ngëm

na ngeen ñu ci xool ñun askanu Sénégal na ngeen ci xool génération yi nga xam ne ay ndaw lañu am yaakaar ñenn ci ñoom seen yaakaar tas bu ñu jël gaal gi di dee ci àll bi ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ci kaso bi Sénégal yi nga xam ñu ngi seen biir kër ay kër di ay mag jur ay doom mënuluñ leen dara mënuluñ leen faj mënuñ leen suturaal mënuñ leen dundal te ñëpp bëgg am possibilité choisir dem ci élection yu indépendant na ngeen ñi ci xool ñooñu ci génération di parce que nous, avons ngeen mbiru élection yemul ci génération 2024. parce que ñun système bi ñu bëgg teg rupture bu am dañuy tourner page livre bi dafa dañ ko bëgg lañ ko bëgg def buñ ko vers l'avenir Nous di def vers l'avenir buñ ko wëlbatee ñeneen ñi ñëw ala kulli al ci yoon boobu rek da dañuy mën a continuer di dem Sénégal changé ba faw alal di nga xamante ne ñëpp ko bokk ñëpp mun cee gis seen bopp yii xeetu ñii am ba am ba am ba am dundee loo xam ne doyaluñ ko dara dinañ dee ba seeni sët sëtaat du ko jeexal loolu dakk fi ñi nga xam ne dañuy ñàkk ba du ñu mën a dundal seeni njaboot ba du mën a dugg sutura loolu tam dakk fi parce que nañ waxante dëgg ñaari diggante yi dafa ëpp te ñaari diggante yi li tax mu am mooy corruption bu bëri sàcc bu bëri détournement bu bëri parce que ku yeboo waxal yàlla xam ne ñii di liggéey ci nguur nekk liggéey ci politique jege mbiru askan wi li ñu yor bare na lool ba jéggi dayoo te askan wi ñuy liggéey yoruñu dara ba dara jeex te loolu nag mënul continuer mënul continuer parce que askan wi dañ cee am seen wàll askan wi mënuñu lekk mënuñu faj mënuñu am liggéey mënuñu takki soxna ñu am ay kër munu ñu def dara ci seen àdduna te ñi leen di liggéeyal war a nekk seen ay ndaw ñu kenn ku nekk ci ñoom yaa nga yor lu dul jeex kenn tegu la bët kenn iñaanewu la waaye li nga yor bu fekkonte ne sa ñaq moo la ko jox wala sa juddu moo la ko jox wala sa liggéey moo la ko jox bu la neexee bu mu jeex mais li nga yor yaa ngi ko yor ci ndodd askan bi parce que suufu askan bi lañuy jaay di ko séddoo alalu askan bi la ñuy momelu askan bi moom la jël paacoo ko séddoo ko ci seen biir loolu lañ bëgg bu jeex page bobu lañuy tourner tourné 2024 kon nak yeen juge conseil constitutionnel Badio Camara nga ne ci seen kanam na nga xamni dossier bi ñu lay indil moom moy dossier rupture bobu nga taxaw ci taxaway bo xamni na nga xamni du yow ak le président Ousmane Sonko du yow ak l'avocat du président Ousmane Sonko yow la ak ñun sénégalais yow la ak génération yii di jur di judd wax ma ñun lu ñu jur de mais ñu juddoogul ñun suñuy doom ñu ñu juragul sax Badio Camara dinañ la nettali sun ay doom ñi nga xam ni juddooguñu sax sëy yi nga xam ne takkaguñ leen xale yi nga xam ne juddooguñu ñooñu ak ñi ñu war a jur ak ñeneen ñooñu ñu ñu jur ñeneen ñu ñu war a jur ñu ñépp seen ay gët ak seen ay nopp incha allah yow Badio kamara yow ak ak euh, yow ak magistrat yi nga àndal di dingeen di bokk ci ñooñu nga xam ni yéen lañu war a yéen lañu war a dajale xool l'histoire l'histoire de cette de cette ñu xool seen histoire damay xool juste euh, euh, damay xool juste liste bi parce que dafa am solo voilà damay xool juste liste bi mënuma ko bañ a xool parce que c'est important nous lire ko ben voilà nous lire liste bi donc ma ñëwaat di wax bisu euh, monsieur Badio madame Aminata Li Ndiaye madame Awa Dieye monsieur Mamadou Mouhamadou Jawara, monsieur Cheikh Tidiane monsieur Cheikh Ndiaye monsieur Youssoufa Djaou monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly tey nous pris décision pour savoir à partir de tey jëm suba jëm de bu la décision de changer l'avenir de 17 millions de Sénégalais kon une responsabilité la ñu ngi leen di ñaanal nous, na leen giddi na leen nous, ndax tamit bu ngeen ko defee defalu leen ñu ko ñun ñii de déedéet Sénégal ngeen ko defaral ak génération yii di ñëw ëllëg ñoom ngeen ko defaral kon loolu mooy benn bi loolu mooy benn poñ bi loolu moo nekkoon benn poñ bi mooy suñu recours bi nga xam ne déposé nañ ko dinañ ci tëj après pour wax leen taxawaay bi ñu ci war a am nee leen nelaw yi na jeex wante dinaa ñëw après joxe quelques recommandations li ma xalaat beneen poñ bi mooy dañu dégg Euh, wa Benno Bokk yaakar ñu né dañoo def recours contre candidature u Bassirou Diomaye Faye peut-être sax def nañu euh, contre yenen candidature waxuñu ko parce que leeralu lu contre caractère lañ ko def deug la jamono ji amna yenen sax candidat yu def recours pour yenen candidat kenn ku nekk am nga droit def réclamation lay wax sax du recours parce que période de recours yi jall na période de réclamation lañ nekk plus recours yi nga xamni ni nekk en cours

président Ousmane Sonko déposé un recours nous avons une ñu indi pression pour cette pression ci kaw conseil constitutionnel conseil constitutionnel nag occasion la pour que yéen nag fipp une bonne fois pour toutes nag que fulla ak fayda ak jom ba mat parce que vous Benno Bokk Yaakaar bu leen yabee ba naan day def recours contre Bassirou Diomaye Faye j'espère que recours bi rek contre un candidat j'espère que recours bi contre Bassirou Diomaye Faye parce que su fait qu'il bi recours bi contre Bassirou Diomaye Faye kon yeen conseil conseil war ngeen fee jaar nak pour xamni wa Benno Bokk Yaakaar may ñu leen benn ci cër parce que li am bu fekke dañ leen bëgg wax ne leen Bassirou Diomaye Faye mu ngi prison yeen lolu xam ngeen ko bi ngeen di jël dossier wa diko déclarer complet diko ko déclarer euh, euh, recevable dans la liste provisoire xam ngeen ko kon moom indiluñ leen élément nouveau te nak kuy def recours da nga indi élément nouveau indi wuñ fi élément nouveau benn ndaxte dara lu bees amu fi bi ñuy déposé dossier Bassirou Diomaye Faye mu ngi woon toujours Cap Manuel kon dara beesul benn ñaareel bi bu fekkente ne dañuy wax ay waxu parti bi bu nekk dañu ko dissoudre dama ni loolu itam conseil constitutionnel loolu yéen xamoon ngeen ko bi ngeen di valider euh, candidature Bassirou Diomaye Faye te bu fekkente ne dañoo dissoudre euh, euh, par parti bi nga xamante ne moom mooy Pastef Bassirou Diomaye fay demul ci parti Pastef yeneen parti ñoom ñëw ko boot yóbbu ko kon yéen loolu élément nouveau amu ci te nag itam euh, bu fekkente ne dañu ñëw pour wax ne waaw képp koo xam ne da nga nekkoon ci benn parti euh, diggante bi nga xamante ne moom nga euh, duggee ci beneen parti dafa war a am un an loolu waa waxu ko loolu waa waxu ko nañ bàyyi tappale fii nag dëkk bi léegi ñëpp jàng droit waa waxul loolu de gis nga ku ñu dàq ci parti bokkul ak ku démissionné ci parti bokkul ak ku partem ñu dissoudre ko ñetti yëpp bu ci nekk juridiquement bokkul kii ñu dàq amul responsable dafa mel ni ku ñu dàq député bu ñu dàq ci partem loi bi wax na ko ba assemblée nationale député bu ñu la dàq ci sa parti yow dangay ngay sa sa mandat parce que yow du yow yaa fauté dañ laa dàq benn bu fekkente ne da ngaa démissionné tu es responsable comme seen candidat yéen yi nga xam ne dañoo démissionné wax leen ci ñooñu Boun Abdallah Dia Dionne dafa démissionné te matul un an Mame Boye Diaw dafa démissionné te matul un an Aly Ngouille dafa démissionné te matul un an kon wax leen ci loolu ku démissionné dangay nga yow yaa responsable tey assemblée nationale bépp député bu démissionné ci sa parti boo bëggee dem ci beneen parti da ngay perte sa mandat de député xanaa du loi moo leer yéen kay da ngeen di def lu leen neex waaye loi moom ñëpp xam nañu lan mooy loi donc loolu ñaar la ñetteel bi nag. sa parti dañ ko dissoudre est-ce que yow yaa foté yow yaa def lutax ñu dissoudre sa parti yow yaa dissoudre sa parti nit moo jóge fee dissoudre sa parti donc tu n'es nullement responsable de la dissolution de ton parti yow buñ ñu dissoudre sa parti yow kenn dissoudre la yow citoyen nga am nga sañ ñu dem ci beneen parti parce que parti bi ñu ne bi ñu ne dañ ko dissoudre ne parti bi amatul mais waxuñu ni citoyen yi amatuñ waxuñu ni yéen yéen ñi nekkoon ci parti bi nekkatu leen ay citoyen ah ah kenn waxul loolu waxul loolu kon am ngeen droit dem ci yenen parti kon ngeen sen argument bobu tamit troisième argumentaire bi ngeen dara dara dara dara compté kon ñi nga patriotes focus argument bobu c'est zéro balayé ñu waxatuñu waxu euh, candidature suñu candidature candidature le président Ousmane kay candidature motax ngeen di indi benen wax di ko ci tek jalu wax ndax yeen seen ay wax ngeen yor rek di ko jal di ko jal wax ngeen di fayé wax li nag munu len ko fay parce que ba ila yow mi président Ousmane Sonko fay bok ci kan ci élection législative présidentielle ba ila yow mi ci bok ba ila yow mi ci bok té li tax sen argument tenir lu sank dama doon waxtan ak sama benn mbokk lépp munema xam nga lan motax candidature Bassirou jomay Faye nit munu ci dal ndax dafa melna ñaari cas ma jox leen ko exemple mooy chauffeur buy dawal oto ñu jàpp oto bi yóbbu ko fourrière bi mooy bi Manam. est-ce que chauffeur boobu am droit dawal beneen ou pas <laughs> mais bien sûr am na droit dawal parce que oto bi une fourrière mais moom kenn fourrière ko loolu benn cas bi deuxième cas bi mooy bu fekkente ne oto bi euh, dafa def benn choc euh, chauffeur bi moom moo ñu euh, euh, carte euh, permis chauffeur bi est-ce que auto bi mën daw wala auto bi mënul daw bien sûr auto bi mën na daw parce que tout simplement auto bi nek na en mesure mu daw donc pour voir ne rek par A ou par B mënu len dara ci candidature bu Bassirou Diomaye Faye ñun kay li ñuy wax mu ci suñu candidature di wax ne nak deug la de conseil constitutionnel ku mu neex déposer fa recours mais nak buñu fatani Benno bokku yaaka ñom ñoo nek au pouvoir nous, sommes au pouvoir donc nous, seen recours dañ ko fondé fonder sur des arguments de droit seen recours dañ ko war a fonder ci loo xamante ah dafa mën taxaw Sénégal aduna bu ñu xoolee bañ ñu xeeb mais nous, ñoom dépassé le ridicule là vraiment ils ont touché le fond du fond j'espère que nous recours yooyu déposé contre un candidat nous ko déposé Nous, dul sunu ay candidat

ñu ngi jëm vers l'avenir mbokk yi ñu ngi jëm vers notre avenir mu mel na tey dara xew mu mel na xëy na dara xew est-ce que xam ngeen ne euh, première euh, euh, mi-temps wala première tour élection yi moom moo nekk di joué wu nii conseil constitutionnel jamono ji ñuy wax premier tour parce que candidat yii am na si ñoo xam ne ñemewuñu jàkkaarloog ñeneen ñi parce que mbokk bu ñu demee ci réew ba ay nit ñu bokk ci nguur taxaw naan la bu candidat bi bokkee élection yi dañ koy perte premier tour kon mbokk yi ngeen xam ne sàcc volonté populaire moom moo nekk en cours sàcc destin de tout un peuple volonté populaire na ku ko wax du falum président Ousmane Sonko déedéet mais mooy destiné wu askanu Sénégal moom nga bëgg yow jël ko foqati ko étayé ko parce que tey ñu ne ci Sénégal yépp na ci àdduna nangu nañu ni kii di candidat président Ousmane Sonko bu bokkee ci élection yi même yeneen candidat yi nangu nañ ko bu bokkee ci élection yi élection yi configuration am dafay wute ak li nga xam ni bu fekkente ne bokku ci waa léegi bu ñu demee ba nga xam ne askan lëmm li mu bëgg ay nit taxaw xam ni askan bi kat lii lañ bëgg ñu ne noo kii il faut pas mu bokk loolu mooy premier tour parce que ñoom xam nañu ni Fini ñu toll sunu candidature bu jàllee li ci des dilatoire ay wax la du amati njëriñ loolu moo ngeen gis Cheikh Omar Anne barki démb muy jëfuur naan candidature dafa bëree parce que ñoom xam nañ ni perte nañ loolu moo ngeen gis Amadou Ba même tournée yi muy def avec toute escorte bi mu yor yëpp moyens yi mu yor yëpp kanam gi mënul fekkee mënta reer ree mënta bëggee parce que xam nañ ni perte nañ yi président Macky Sall gis ngeen yaram bi nu mu xam ngeen ni moom xam na ni perte na ñun kese ñun ñoo xamagul ni perte na ñun sénégalais ñun ñoo nangoogul gëm comprendre ni ñoom perte nañu mais ñoom xam nañ ni perte nañu léegi nag ñun ñu ngi devant notre destin aduna mu ngi seetaan ñun fi ñu toll nii euh, euh, suñu avenir mu ngi nii ñu koy gis mais ñun dañu war am taxawaay bu ñu taxawee ba nga xam ni suñu candidature dafay bokk parce que nag loolu kenn werantewu ko parce que ñun suñu président suñu candidat du bokk loolu mooy du du maa tey de loolu mooy droit amatul Sénégal loolu mooy conseil constitutionnel amatul Sénégal te gis nga conseil constitutionnel heure bi 2011 heure bi 2019 fekk na dëkk bi kenn nelawul ku fi yor kàddu nelawoo ku fi yor alal nelawoo ku fiyor yor leneen ak leneen nelawoo parce que boobu ba léegi nit ñaa ngi taxaw ñii di julli ñii di ñaan ñi di dox ñii di wax ku nekk yaa ngi yëngu parce que xam nga ni fi ñu toll nii moom mooy moment fatidique léegi na def mel nañu yëguñu ko parce que ñu bëri dañoo foog ni le vent le mbir mi jëm ma leen di alerte seen attention mbir mi mën naa bañ a egg le vent jàpp leen ni tey jii ci guddi tëj nañu recours yëpp recours amatul conseil constitutionnel loi dafa ni ko yow à tout moment mën nga statuer tey ci xaaju guddi bu ñu tëddee mën naa statuer bu ko neexee am na ci droit ndaxte ñoom dafa mel ni mbir mi da leen di lakk parce que bu ngeen seetee même liste provisoire bi waruñu ko woon génnee keroog amoon nañu temps bàyyi ba le 13 mais dañoo gaawantu bëtëxal ko génne ci seen loxo parce que pression bi xëy na moom moo bëree ci ñoom dañu yaakaar nag ñu pression boobu mu nekk pression bu positif muy ñi nekk ci seen biir te bëgg def lu baax te di fippu ñoom ñoo nekk di def pression bi ci kaw ñi nga xam ne bëgguñu def lu baax te ñu ñaan yàlla ñi bëgg a def lu baax ñoom ñu am ndam ñu ëpp ñi nga xamante ne ñoo bëgg a def safaan bi waaye du tere mbokk yi ñu nit ñu bañ a nelawati du tere ñu nit ñu xam parce que kenn ku ne suñu dafa war a xam ñi jàpp ne le vingt mën nañoo dem tëddi nelaw jàpp ne tey dara xewul suba dara xewul gannaaw suba dara xewul ne ñu xam ni demeewul noonu déedéet conseil constitutionnel su ko neexee suba suba mu yeewu ne mbir mi bàcc ci tali bi génne ci loxoom daal di ne yaa ngi nii président Ousmane Sonko ngi nenene leneen té ngi damay wax lolou bu ko défé tam kenn du len ray kenn du len xoj kenn du len dor waxana deug parce que état du Sénégal mënuluñ dara magistrat conseil constitutionnel mënuluñ len dara état du Sénégal mënuñu dara sur les magistrats du conseil constitutionnel parce que les magistrats ils sont là indépendants kenn ci ñom ku nek nak moy décider assumer indépendance am ou pas damay xamal ne len nguur gu jeex bo xamantene wéra ko fi déssé lan la leen mën lan la leen mënalati mënalatu leen dara ni ça, si fay def juste coon def ko yéen am ngeen la possibilité de faire la même chose parce que nag pensez que bu ngeen fi defee leneen yéen a ngi ces magistrats qui ont été courageux parce que nag gis nga ni Benno Bokk Yaakaar taxawee ne dafa war a parce que dafa war protéger arrière am ko juge conseil constitutionnel noonu la ñu war nous taxawee ñoom protéger tous ces magistrats qui ont été courageux et qui ont dit le droit pour l'honneur de la corporation, pour l'honneur de la magistrature et pour tourner une page, pour éviter demain que sabre bi di pas dal ci kaw ci kaw magistrat yooyu yéen a leen a protéger yéen magistrat parce que ay magistrats comme yéen liñ def sénégalais des ko la justice lañ ko mais ils sont bokkal prenez vos responsabilités il ne vous arrivera rien du tout dara arrivé su le droit parce que nous sommes le peuple souverain Nous nous ñoo bëgg valider la candidature du président Ousmane Sonko ñun tali millions yor milliards tamit multi milliards nous ci ay train parce que nous sommes le peuple souverain nous, nous leen jox mandat le conseil constitutionnel vous devez venir vers le sens du peuple Vous mooy dëgg loolu vous devez aller vers le sens du peuple parce que vous ne servez que le peuple De ses devoirs, de ses ligues quels pour l'avenir et pour l'histoire et pour l'histoire Quel mënul leen dara au contraire lu ngeen fi defoon démb dinañ leen ko parce que le peuple a la mémoire courte wane nañ ko

bon fi ñëwé bo waxul saf wala ak ñun la ngay wax dana nga wax sa wax dem mais ñun focus bi mais focus bi nañ ko def ci conseil constitutionnel def ko dossier parce que nous bo déposé sa dossier da nga koy accompagner accompagner bi du xatarayu du yaq du ñun gëmuñu loolu parce que ñun ku xeex ba ñëpp xeex la la nga yuux ba ñëpp jox la dëgg jaratuloo looy xataraay xam nga lan moo ci des nag accompagner ko ak taxawaay ak fulla ak fayda mobiliser wu pacifiquement il faut que kenn su ñun ku nekk préparer leen parce que bu ñu nee prip conseil constitutionnel validé na suñu candidature loolu moom mooy déjà premier tour jàll nañ ko parce que ñun xam ne dina ci xolu sénégalais vis-à-vis de nous xam nañu ko ñun amuñu problème bobu malgré loolu nag waxuñu nañu jox nguur gi par force de waxuñu dañuy dem jëli nguur gi tamit par force dañu né dañ koy jaarale ci ay élection dem ci élection état bi jo sénégalais yi voter ñu ñu jël nguur gi malgré que japp nañu ni tay bu fekkonté né nguur popularité mo koy joxé kon ñun euh, buñ neexee dem jëli jiko ci mbedd mais suñu candidat le président Ousmane Sonko choisirul option bobu mom limu choisir moy élection moom malgré ni ñi di wax mom choisirul coup d'état choisirul mbedd mom les urnes mom le choisir motax mu def euh, procédure ba egg fi kon nak may leen ñu ñu dem ci urne yoyu bu fekkente ni ñom li ñi wax ci ñom deug la que ñom japp nañu ni ils sont capables de gagner mais xayrun xayrun nañ dem ci élection ñu xol ba xam mais ce n'est pas possible dans l'histoire d'un pays ben camp bu nga xamni mo nek au pouvoir ne duma ma benen camp participer parce que buñu participer dañuy gagner élection yi mais est-ce que sax les gens est-ce que ñi nga xam ñoo ne ci réew mi te nek ay observateur même buñu ñu ay neutre est-ce que ñu ngi xol li nek di am est-ce que ñun war nañu nangu élection yi mu am ci réew mi te président Ousmane Sonko bokku ci est-ce que sénégalais war na nangu lolu parce que sénégalais li tax mu war a bañ lolu même sénégalais bi nga xam dafa tok kërëm bokul pastef bokul ex pastef bokul sonko président du sympathisant bokul ci ñun sax mais dafa tok kërëm rek neut est-ce que sénégalais bu war nangu ñu né la no ki du bokku ci jonganté bi parce que mo ëpp yenen mbër yi doole bu ci bokké dalen di daan est-ce que moom jox bopam doolé yalla moko jox doolé bu fekkenté né bu bokké kay day daan té li di compétition mais kon ka kay di ngeen wara def moy xana yeen ñëpp ngeen décréter ko président mais baña dem élection mom du wax décrété ko président loolu mo gënoon yomb mais xamna toujours bi am ñoo xam dañuy siisu amna na xam duñu mës nangul nangu lool malgré que xam nañu ndax ñoom sonkorisation bi doyna len sondage euh Kopar Express bi doyna len sondage dajale xaalis bi mobilisation à travers le Sénégal doyna len sondage donc ñom xam nañ ku len mën wóor na leen wóoru yàlla ni ki mo len mën président Ousmane Sonko mo len mën xam nañ loolu mais ñu né ñom duñ dem élection ak mom parce que bu demee day gagné wa légui est ce que ñun askanu Sénégal bëgg suñu destin est ce que ñun dañuy lool dañ koy xalaata nangu man de ngeen baal ma xel nekkul sax ci sama xel bu gëna sori sore <laughs> waaw vraiment Mbacké sa ni kenn mësu ko gis ci addu kenn mësu ko gis ci addu waaw parce que wax argument yu ñu doon wax yépp kepp na non compte max kepp na justice daanal nako non non fichier électoral bi nekku ci moto joxuñu ko justice juge bi ne delloo leen ko ci fiche euh, jox leen ko fiche am Sénat ci boppam Sénat ci boppam na jox leen ko fiche am kon loolu jàll na kenn waxatul waxam wa léegi ñu dem ba ay CDC ab waay boo xamante ne ah dégg naa sax promotionnaire la woon bu njëkk ci président Ousmane Sonko damay fàttali nag loolu il faut nit ñi xam ko sénégalais fàttaliku leen waa ji di Cheikh Issa Sall mais moom moo fi génne woon nee naay audio boobu nee na dafa enregistré woon. Euh, euh, le président Ousmane Sonko ci ay euh, waxu ay Mansour Faye ak bëgg naa ko gis ak bëgg mu ko gis loolu nekk audio boo xam ni bu yàgg yàgg la depuis temps tey bu njaay mu jël ko teg ko kooku est-ce que kooku yéen yaakaar ngeen ni ku sa wujj di sang di nga set ndax kooku moom wane na wujjeem ndaxte damay fàttali Cheikh Issa Sall moo fi enregistré woon le président Ousmane Sonko bu ñu wax moom téléphone jël enregistrement yi dugal ko ci espace public bi bu amul solo waa léegi Cheikh Issa Sall moomu est-ce que moom mun na ci après bi mu jógee ci enregistrer président Ousmane Sonko mom wane na moom bañam parce que je suis désolé fi Sénégal tollu bo démé ba nit ki pour nga combattre ko dang koy enregistrer ci enregistrement yo xamantene sa dang koy couper diko dag diko dag parce que leerul parce que xam nga ni lim ci wax amul dara lu ko ci incriminer parce que yow bi ngay wax ak mom ak période bi nga né période bobu la du ben mais yow bu fekkante né yow kooku def nga def lolu def enregistrer nit kooku moo wëlbatikuwaat ñu ne ko léegi destiné nit kooku

déjà na ngeen fàttaliku ni ngeen di fàttalikoo ñeneen ñu fi enregistré woon ay nit na ngeen ci boole Cheikh Issa Sall moom waaye weesu na loolu moom Cheikh Issa Sall nit dafa ñëw ci fi muy liggéeye déposé fa xaalis ñu jox ko quittance mu yore attestation di wër di làqatu ba ñu joxe attestation boobu di ko layal te tegu ko fenn moom Cheikh Issa Sall moom itamit bëgg a taxaw suñu diggante ak suñu avenir bëgg a taxaw suñu diggante ak suñu ëllëg wa legui ñun bu defee bu bëggé def loolu mom ñun ñu koy wax ne ko Cheikh isa Sall bi ñun ak yow yow la ak yalla suñu borom ndaxte li yalla suñu borom bëgg décidé def fi ci Sénégal Cheikh isa Sall jëm demb jëmon nga ko dindi amo ci ndam tay do ci am ndam tay itam do ci am ndam ni nga ci ameewuloon ndam demb ba nga wëré ah jox jël jël audio bobu jox ko euh, Mansour fay mu dem ci plateau astu jonne di wax tey ba mu téggé audio bi benn wax mëna ko sax muy audio bo amul benn solo han bo ngeen bo nge xamni nak yow yow Cheikh isa Sall bu xam nga bu amo ci ndam ñi nga dul amé ci li ndam ñi nga dul amé ci li ndam candaalam candeela fal mom ken waxatu ko Amina sall wax nga dëgg candeela fal mom ken waxatu ko parce que mom moom candeela fal dans l'avenir li yep mu def te jaar ci wallahi lazim dina bëgg euh delu ci ginnaaw fekk ci trop tard parce que nak mom lii yëpp mënu na ko ci bañ fekk parce que mom c'est un mom c'est un fonctionnaire da ngay liggéey sa liggéey da ngay liggéey sa liggéey defal li la yoon wax justice bu ñëwee ne la defal li defal mu la wax mais dafa yomb torop nga def li leen neex nga wëlbati ko bëgg a jël mbir mi sotti ko ci ginnaaw daaf ne daaf ñëw deful ah ah du nangu loolu du ñu nangu loolu du ñu nangu loolu na ñëpp jël seen responsabilité xarale yaa ngi fii li ngeen fi def dana fi des ci Google Google dina ko dina ko téye ba abadan daay man informatique international, su sax du parce que nañ ko def ko ci imprime ko ko ci ay dinañ ko ay kon na ngeen ko mobilisation parce que ce qui se passe c'est notre histoire bu ñu kenn foog ni a pas besoin de se mobiliser comme je l'ai dit tout de suite parce que nous, on a la force avec nous ku bëgg xeex wala nga bëgg a demal nga xeex demal nga xulo. ñun dañu gëm né dañuy dem élection inshallah parce que nous avons ñuy dem élection raison yi dafa bëri dañuy dem élection pour libérer sénégalais dañuy dem élection pour tagat suñu dëkk ci yoon dañuy dem élection pour libérer les prisonniers et les détenus politiques dañuy dem élection pour libérer suñu candidat le président Ousmane Sonko ndax ñi kat dox yi ñu dox xam ngeen ni du ñoom ñokoy libérer

ay doomam macha allah am chance mu nekk seen papa ay yaayam am chance mu doon doomam ay xaritam tànn ko def ko xarit mais ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy ñi ànd ak moom tey ñun ñoo tànn def ko suñu candidat ëllëg nag sénégalais yi ñooy tànn ba xam dinañ ko def seen président nañ ngil ngella la ñu bàyyi tànneef boobu mu mun a am mu mun a aboutir bu fekkente ne nag jóge nañ ci tànneef boobu nga xamante ne incha allah ñun gëm nañu dina am bu président Ousmane Sonko taxawee ci nga xamni ni yoonu tanef bobu lepp lu nga xamantene nak way waaye bëgg na fi def ci diggante bi pour yàq-yàq na ci xol yalla parce que lu ngeen jéemoon bobu ba léegi musu leen ci am ben ndam te gëm naa ni li tammi du ñëw du ngeen ci am ben ndam mais nak suñu mobilisation mom mo ci dess ndaxte nak il faut pas qu'on ait des complexes parce que nak kuy dem devant des rendez-vous aussi importants importante un rendez-vous aussi important dans l'histoire de son pays de sa nation de son avenir war nga koo gunge war nga koo gunge kon suba ñiy xëy nañu xëy ak sañse ñuy xëy ak njàpp nañu xëy ak mobilisation ak détermination ñu toog ci kër yi toog leen ak détermination toog leen ak taxawaay da ngeen xam ne bisu suba bi xëy na ci leen leen di accorder valider la candidature du président Ousmane Sonko kon da ngeen ko war a bàyyi xel da ko war a fanaanoo da ngeen ko war a yeewoo da ngeen ko war a doxee da ngeen ko war a waxee kenn warul ne yëguma ah bon loolu amoon na fi xaw ma ko woon yëguma ko woon loolu c'est pas possible na ko ñëpp xam na ko ñëpp yëg ñi ci mën def ci ay dog bu dee loolu lañ gëm suba ba ngoon julli nañ ci def ay dog julli suba ba ngoon ñi ci mën a dox ñi ci mën a wax parce que nag Sénégal lañ nekk Sénégal lañ nekk ñëpp ay wax ñëpp a xamante ku ci mën a dox dox ci waaw juge conseil constitutionnel ay nit lañ am nañ ay mbokk am nañ ay soxna am nañ ay doom am nañ ay dëkkandoo ku ci mën a dox dox ci ku ci mën a wax wax ci parce que nag lii ñuy bëgg a def defuñu ko seen bopp ñun ñëpp lañ ko def kon il faut ñu dox ci il faut ñu wax ci bu kenn ku ne jàpp rek ne non non juge kese la dama ni nañu jël suñu téléphone yii jël suñuy rajo man de su mënoon takk rajo chaque une heure de temps ma yëkkati sama kàddu daa monsieur Badio Kamara, madame Alimata Ali Aminata Ly Ndiaye madame Awa monsieur Mohamedou Diawara monsieur Cheikh Ndiaye monsieur Youssoufa Diaw monsieur Cheikh Ahmed Tidjan Koulibaly vous êtes appelés devant l'histoire est-ce que vous êtes présents est-ce que vous savez la responsabilité de de heure bu Yalla xam téléphone Ah, xawma nak ndax lima len leen di woo euh, seen fit yi mu ngi teuf teufi wala déet mais na ngeen xam ne daal man ma ngi len di wo ku xamul ku len xam sax ku xamul ku xam ñii ku xamul ku xam ñii xamo ku len xam xamo ku xam ku len xam jëlal sa telephone ak sa liste di len tudd ndaxte nak tur dafa fort tur dafa fort voilà tur dafa fort dañ naan ko ba ñu tuddee ni da ngay jël juróom-ñaari jikkoom gis nga koo woo turam ba mu egg dix cinq dix sept millions de woo wondoo turu ñooñu wallaay lazim dinañ ko yëg kon nag dama bëgg kenn ku nekk ci yéen fu mu toog ñi mën dog moom xam naa du ma leen wax ñoom Cheikh Bara dina leen jël ak ñeneen yi ñoom ñu ngi ci dog yi ñi mënul ay dog nañu jël seen làmmiñ seen làmmiñ yu set yu sell parce que ñun suñu làmmiñ yi macha allah bu leen yàlla dimbalee na ñu am set am laab am jàpp. Dadi Water, monsieur Badio Kamara, madame Ali Aminata Ly madame Awo djey Muhammadu Jawara, Cheikh Ndiaye Youssoufa Diaw Sheikh Cheikh Ahmed Koulibaly aduna di vous êtes appelés devant l'histoire à parler pour nous et à décider pour notre destin et le destin de tous les Sénégalais que Dieu vous guide dans cette décision et que Dieu vous donne la force de dire le droit rien que le droit parce que fille, on vous demande rien d'autre que de dire le droit. On ne vous demande pas de nous faire des faveurs, mais on vous demande de, faire de, dire le droit, de respecter votre jurisprudence. Parce que si c'est un avenir, si c'est une jurisprudence, vous deviez montrer que quand l'administration fait défaut sur des manquements de pièces, la faute ne peut être imputée au candidat. On vous demande de dire la même chose. Il n'y a rien de nouveau. Peut-être que pour le clan de Macky Sall, Nima candidat différents de candidats. Le nom Ousmane Sonko est un nom qui fait tellement peur, qui fait tellement trembler qu'ils ont décidé de faire un tout sauf Ousmane Sonko. Mais ils ont perdu. Ils ont perdu parce que Dieu n'est pas avec eux. Ils ont perdu parce que nous, nous en 2011. On n'est plus avec eux. La vérité n'est pas avec eux. L'histoire ne sera pas avec eux. Comme ils ont perdu bu leen nangu mukk ci aduna ñu len di duggal ci lu salte di len duggal ci lu ñaaw bu leen ko nangu dara jaru ko fi ñun nak am nañ suñu responsabilité di dinañu ñaan mais dinañ leen tudd parce que nak vous avez notre avenir entre vos mains tudd ñu len parce que dañ len di euh, euh diffamer wala parce que dañ len di euh, quoi que ce soit on avait pas si fekkante ñu yoru len won suñu avenir entre vos mains duñ len sax tudd ndaxte nekk ngeen ci dëkk bi bobu ba léegi mosuñu len tudd dëgg lo dëgg yàgg nañu ak yéen ci réew mi mosuñu leen a tudd kon nag li tax ñu leen di tudd vous avez notre avenir entre vos mains l'avenir de nos enfants l'avenir des enfants de nos enfants de plusieurs générations à venir donc dinañ leen tudd Et j'espère que suñu tudd yi ñu leen di tudd dina egg ci seen xol j'espère que di ngeen ko j'espère que suñu suñu suñu volonté dina nekk une pression dans vos sommeils parce que nag gëm naa ne ay góor ngeen te gëm naa ne lii suñu tudd yëpp bu ñu leen tudd ko ci dina diis diisaay bu toll ni di ngeen xam ne nag suñu ay gët ñu ci yéen dëgg la nag yeen conseil constitutionnel yéen validé woon troisième candidature du président Abdoulaye Wade 2012 yéen la de ba nit ñi di xeex ñu bari ay nit dee yéen ne woon président Abdoulaye Wade am na droit boq xoolu leen dara xoolu leen lu neex askan bi waaye xam nga boobu fan ngeen ko tegoon da ngeen ne ci droit ngeen ko tegoon da ngeen ne ci droit ngeen ko tegoon da ngeen ni ci taxi ngeen ko teggon da ngeen ni ci constitution bi ngeen ko teggon ken munu ci won dara on n'était pas d'accord parce que dañ doon xex pour troisième candidature baña am ni ngeen valider ko ngeen ne da ngeen ko tek ci droit ñepp dem élection jakarlo ki yeen le même conseil constitutionnel lu ne waxon nañ leen ko ci ay wax yu ñaaw parce que gëmuñu won ni lool mo wara nek sen taxaway mais vous avez dit que da ngeen droit tay nak le même droit mo leen rattraper les juges du conseil constitutionnel vous êtes rattrapé par le même droit

préparez-vous à passer le flambeau parce que même si vous le faites tomber nous le ramasserons donc na na defin bi c'est ça qu'il faut faire d'autres ont vécu après avoir perdu le pouvoir vous vivrez après avoir perdu ce pouvoir parce que nous, ñun la et vous savez très bien que nous ne sommes pas vous nous ne sommes pas vous les traques la traque de sorcières là il fait en 12 dernières années mais vous avez des choses à vous reprocher dites-le au peuple vous avez volé rendez vous avez détourné redonnez c'est tout ce qu'on vous demande à part ça nous n'avons pas de problème avec vous nous n'avons pas de problème avec vous donc Lolo, mon la bëggoon j'aurais bien aimé prendre des intervenants mais je ne sais pas quoi faire comment faire je l'ai dit tout à l'heure may ñaan bu kenn gis nga focus bi na doon ci lii conseil constitutionnel tëj nañu ñëpp déposé nañu recours à partir de tey ci guddi jëm suba jëm gannaaw suba peut-être sax mais jëm gannaaw suba en tout cas fii ba le nous ci la war a tontu kon nag ku amoon sa looy wax waxal ci sunu candidature bi mu la candidat candidature du président Ousmane Sonko muy le choix et la volonté populaire wax ci suba wax ci bëccëg wax ci yor-yor wax ci ngoon goudi ci timis wax ci waxtu bu on l'autorise il faut parler que de ça parce que ils pensent que nous sommes passés à autre chose ils pensent que nous n'avons nous, nous, nous, nous sommes résignés nous ne sommes pas résignés c'est parce que nous avons confiance et parce que c'est pas parce que nak bu ken kenn ragalloo non bu ngeen ci waxee dañuy def li conséquence liñ nam wax liñ nam wax su fekkente ne juste parce que dañoo wax motax duñ ci wax wala buñu waxul motax duñ ci wax nañ ci wax la wax parce que ñun on a quelques heures qui nous partagent qui nous qui nous qui nous qui nous séparent de notre avenir qui nous séparent de la candidature du président Ousmane Sonko de la victoire de son combat politique de la victoire de son de de de, sa détermination li mu def yépp mu def ko fofu lañ toll voilà donc nak nañ ci taxaw nañ ci taxaw nañ ci taxaw bu subaa liveur yi nañu yewu yenn du def ay live tay ci gudd su ngeen mune def ay veille nocturne sax veille nocturne ñi nga xamantene dañu mën a julli nañ julli ñi tal sondel tal sondel ñi ñaan nañu ñaan ñi wax nañu wax yaa ngi dégg ku nekk na nga xam looy def ñi saraxi ginaar ku ne la nga xam lan ngay def en tout cas il s'agit de tout simplement nous préparer génnee leen yëre yu rafet yi on se prépare on se prépare on se tient prêt parce que nag il s'agit d'un tournant de l'histoire et puis d'un tournant aussi par rapport à ce feuilleton judiciaire. Depuis des années, justice Yegouat, depuis des années, créé, bafouer les droits d'un individu, bafouer les droits d'un citoyen, telle que façon elle bounek, le Conseil constitutionnel a le devoir de réparer cette injustice, cette persécution, d'y mettre fin. Préparons-nous à ça ku xa ku préparé wu loolu lan ngay préparé parce que loolu lu am solo lu am importance préparons-nous à ça tenons-nous prêts tenons-nous prêts ku waroon génn Dakar sa waro génn Dakar da nga wara tok parce que à tout moment conseil constitutionnel mën naa génnee euh, mën naa génnee liste bi à tout moment mën a gagné liste te dañoo war mobiliser wu dañoo taxaw pacifiquement ànd joxante loxo wala suñu mbégte parce que nak ce sera la victoire de la persévérance donc il faut se tenir prêt suba na nit ñi yendo live deng xamna xam ne dinañ def ay restrictions ci ligne mais il faut le faire il faut le faire te nag bu len xet sen bop lu ben nit mëna tok diko wax dee leen def ay kuréel yu rëy a di wax di répéter ndoo tur yi en chœur parce qu'il faut qu'on mette la pression sur ces sept juges parce que à eux sept ils ont notre avenir entre leurs mains voilà donc il faut

ñoom fi nekk nii pour ñoom dégg naa keroog ba ñu ne ba ñu defee liste bi te boolewuñ ci euh, turu président Ousmane Sonko ñoom dañ doon jubilé ñoom dañ doon wéqatu di kontaan ma ne leen ñàkk jom yéen a ñàkk jom ak fu ngeen munti féete parce que bu fekkente ne yow ñu ne nit ki bokkul élection moo tax nga kontaan yow saaba veut dire que ragal daf man nga ak sa baay wala nga ànd ak sa mag mu war a dem bëri ñu ne la mbër mi nga xamante ne moo mat mbër mbër moomu de dafa gaañ dafa am blessure ngay kontaan ñu ne la noo wante fi ne nii de xale bu am fukki at moo fa des xale boobu sax ngay xool noo ko galgalee ndax ñeme woo bëreeg moom <laughs> ah kon xam ngeen ni yéen ñi bëgge ndax dañoo téye dañoo ko téye woon provisoirement yéen pare leen génnee seen ay mouchoir te ngeen gëm yàlla ndaxte nag yéen li ngeen nekkee nekkatul adversité politique mbañeel la waaye nag dama leen di xamal ngeen dalal seen xel parce que réew mii nag wala ëpp leen ñu fi mbokk te réew mii nag incha allah 2024 suñu loxo lay tobbi waaw loolu la yàlla dogal parce que sénégalais yi ñoo ko bëgg sénégalais yi ñoom ñoo doyal ci régime bii du ñun ak yéen de ñaan ak benn bokk yaakaar wuñu seen candidat di kontaan ndax suñuy candidat bokkuñu ñu xam ne du ñun ak ñoom ñoom la ak sénégalais yi te nit nag par la force ma jiite la loolu amul fenn loolu amul fenn par la force ma jiite la amul fenn ci àdduna du ngeen jiite kenn doxal ngeen 12 ans li ngeen mënoon wane ngeen ko nit ñi ñoo doyal sénégalais ñoo pare ci yéen sénégalais ñoo pare ci yéen sénégalais ñoo bëgg ngeen dem pour l'instant nak sénégalais yoy bëgg ngeen dem yeen ngeen na déj da ngeen di tok ba tax na fi toll ni ñun buñu xeyoon sax ñun ne graw nañ tudd nelaw parce que ñu wol nañ suñu dossier yeen da ngeen di fanano def bi ay wird parce que jaral na len ko jaral na len buxaaba jaral na len saraxe jaral na len sacrifice jaral na len lu ne ndax jaral na len jubilé um jaral jubilé jaral li ci des kon ñun ñu wara am ful la ñu nit mu jaral ñu ñaan jaral ñu julli jaral ñu wor wa parce que suñu soxla la suñu soxla ndax defuñu ko pour ñun ndax bu doon pour ñun kese kon wax jëb duñ ci fekk politique duñ ci fekk ndax yalla mu ñu suturaal ñu ngi sante yalla wax ñun ba ñuy dund ci tukki di dem ak di ñew di tabax ak geneen geneen bo politique ñu kon ñun lijjanti wuñu lolu politique taxu ñoo taxaw mais dañ koy def pour suñu ay doom pour génération yi di ñew génération yi di ñew pour suñu réew motax tax xex kon nak ngeen xamé ko non on est dans les dernières la dernière derrière on est sur la dernière ligne droite on est sur la dernière ligne droite na ko ñepp xam na ko ñepp xam le droit est avec le candidat le président Ousmane Sonko le droit est avec nous la justice

kenn xeb boppam yaay yi papa yi def loolu leen len ay vidéo jël leen sen téléphone ngeen enregistré leen pay jox leen len ñu wax xalé jox leen len ñu wax na ñepp wax na ñepp wax le président Ousmane Sonko est mon candidat pour ces élections de 2000 de de février 2025. de, du 25 février 2024. il est mon candidat mom la andal mom la tam. C'est mom lay xaar na ko ku nekk vidéo ne viral nañu dugal des vidéos des publications dem leen ci groupe yi dem leen ci marché dem leen ci daara yi dem leen ci école yi dem leen partout wax leen au monde que on n'attend qu'une chose la validation la validation du du dossier du du président Ousmane Sonko on n'attend rien d'autre bu kenn nelaw su ma mënoon damay continuer live ak yéen fii ba fajar waaye du ma yem fii dinaa dem TikTok dinaa dem feneen ak feneen ngeen woon ma nan lañ koy defee mais en tout cas dama bëgg ñun ñëpp ñu dox ci wax ci suba def leen ko seen priorité def leen ko seen priorité parce que rek xëy rek ne non non bon déposé nañ ba pare yàlla baax na mën nañ ko gunge ak ay ñaan waaye nag yëkkati suñu baat parce que aduna aussi mu ngi seetaan et c'est important que le monde sache que nous sommes prêts que nous sommes prêts à accompagner notre candidat et notre choix c'est important que le monde le sache. Donc, Souba, dans ton entourage, dans ta famille, dans tes amis, faire euh, des hashtags, hein, des hashtags candidat ou président Ousmane Sonko même ko def nañ ko sur les réseaux sociaux rire le ko ci lépp lu mais support médiatique nañ ko def notre candidat notre candidat notre choix notre volonté notre candidat notre choix notre volonté notre candidat notre notre choix notre volonté

notre espoir mais en tout cas il faut qu'on voie l'effigie l'image du président Ousmane Sonko mu mec, dans le monde entier le monde entier va dire c'est qu'est-ce qui se passe au Sénégal eh ben les Sénégalais ont fait leur choix et écoute et écoute le Conseil constitutionnel le Conseil constitutionnel il faut nous xam ni moom ñoom la bu ñu di café nañu xam ni ñun ñoom la ñuy déglu bu ñu yeewoo nañu xam ni ñoom la ñuy déglu bu ñu deelee kaasu café suba teel di naan nañu xam ni ñoom la ñuy déglu bu ñu ye bu ñu bu ñuy bu ñuy xam xàmp mburu ni Ababacar Mbeng nañu xam ni ñoom la ñuy déglu bu ñuy añ nañu xam ni ñoom la ñuy déglu bu ñu naan ataaya nañ ko xam bu ñu naan ndox nañ ko xam bu ñu sangu nañ ko xam bu ñu tëddee nañ ko xam lépp lu ñuy def nañu xam parce que léegi ku yor sa téléphone boo defee nii foo romb di ñu gis Il sera notre candidat, le candidat de l'espoir. Merci Mohamed Moussafa, noble job. Il faut que ce soit viral. Merci beaucoup. Notre candidat, notre choix, notre volonté. Et cette volonté doit être respectée par le Conseil constitutionnel. C'est notre candidat, c'est notre choix, c'est notre volonté. Et ça doit être respecté par le Conseil constitutionnel. Ça doit être respecté par les magistrats qui vont arbitrer ce match. Parce qu'il est notre candidat, il est notre choix et c'est notre volonté.

Aussi que ce soit clair. Certains pensent que faire le focus sur le can la candidature d'Ousmane Sonko Muna Amdara, am dara lu mu yak au cas Ousmane Sonko euh, président Ousmane Sonko bokul Muna yak dara jomay. non non non non non non non non le candidat de ces élections il s'appelle le président Ousmane Sonko Mom moy gagné wala ko gagné moo la gagné ou kon nak mbir so ci dem dang koy ñeme mbir so ci dem dang koy ñeme parce que moy gagner. gagné président Ousmane Sonko moy gagné wala moy gagné lo. Lu kep mo fi am leneen amul kon nak fini ñu toll ñu ngi dernière la ligne droite der ñu devant la dernière ligne droite kon nak nañu def le maximum ba nga demain le monde l'Afrique tout le monde saura que ce qui se passe c'est le candidat le choix et la volonté du peuple sénégalais c'est le président Ousmane Sonko faisons le savoir au monde entier on a les capacités meun nañu ko am am nañu capacité bi te ñun luñ bëgg def def ko kon nag acca ñun ñoo ci des ñun kese ñoo ci des buñ ko bëggee def rek incha allah ñëpp ci loolu la ñuy wax buñ wax ci leneen bu ñu wax ci leneen ndaxte leneen yëpp waxu tappale la ndax dañu bañ ñu wax ci lii moo tax ñu ñuy divertir wax naa leen sànq dossier Bassirou Diomaye bi amul lenn loo xamante ne am na ci amul amul dañu ci bëgg a divertir nañ leen ko tegee ne voilà nañ dox ci suñu candidature ñu xool nag ndax dëkk bii président ak wala donc je suis disponible demain kuy def live invité invité hmm? kuy def euh, communication associé euh, associé à tout moment à tout moment voilà Mon nekk ci sport mon mu nek, voilà donc parce que on a l'occasion te yal mon monu ñu euh, tegal yoon bi xàllal ñu ko boole euh, pour ñu mona changer ce pays là on n'a pas le droit de ne pas être au rendez-vous on n'a pas le droit Galas Ndiaye waa nee notre espoir nyo ci notre espoir waa lii banditisme d'état la Galas Ndiaye ganitu déjà weetu weesuwul euh, nga bëgg jël droit remplacer ko par une volonté nit mu neex voilà donc daal mbir ma ngi noonu léegi mu ngi noonu foog naa On na mat na sëkk ah <laughs> Diba Petit Boss nee na mat na kon merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup donc quand naa ci suivre bi ak euh 1 million marche mu ne invité naa la amul ben problème je viens voilà waxu len ma heure yi toute la journée même la nuit sax je ne dors pas je laisse mon téléphone même dans la nuit celui qui veulent. du ma nelaw nelaw amul nelaw amul garaawul dina may naan ay kafe ah sànq ba léegi maa ngi naan ay thé maa ngi naan ay kafe pour pas dormir du ma nelaw voilà donc ñu ngi ci donc à tout moment live bu ngeen bëgg invité ñu invité leen ñu parce que nag mbir soo ci dem tamit mu amal la solo da ngay am da ngay am taxawaay ñi nga xam ni dañoo mënut a ñàkk nelaw nañ dem tëddi mais nañ yeewu fajar ah jël kaaru fajar bi après ñu alterne mais en tout cas daal suba lii mooy suñu yitte waaw lii mooy sunu yitte sunu yaakaar sunu choix sunu tànneef ci taxawaay ci mën-mën ak ci bëgg bëgg bëgg Sénégal ñu xam ne moom kese moo mën a changer donc on se donne tous les moyens ndeysaan xam sëñ Saliou non mais après di nga ko rattraper ah voilà donc merci Fatima la son collègue sama njaboot gi yéen tamit aw ma seen fay vraiment aw ma seen fay focus bi gis naa lépp parce que ñu bare dañuy dañuy dañ may tooñ sax xam nga nit moom boo ko ñaanee mu nangu wallaay du ci yow mais ci moom la parce que ki may mu ëpp tuyaaba kii ñaan kii ñaan moom day ñaan rek waaw buñ ko mayee baax na buñ ko mayul baax na mais yéen ñi ma may cër boobu cëru tata cëru bàjjen hmm, ba lu ma def ak lu ma wax ci yéen mu neex leen ndax ñëpp xam nañ ni kenn ku ne yaa sa téléphone nag kenn ku ne yaa moom sa connexion yaa moom sa téléphone jënd ko moom sa connexion te nag ñu nekk en démocratie waaw donc ku mu neex rek Euh, euh, nga bind lu la neex commenter ci lu la neex wax ci lu la neex waaye soo demee ba may ma cër te cër bi ngeen ma may tam xam naa ni euh, ki ñu bokk rek ka tax ngeen may ma ko voilà may ngeen ma ko ci peut ci sama taxawaay mais moom moo tax ngeen may ma ko te man loolu xam naa ko man loolu xam naa ko donc moom mi nga xam ne xam ngeen ni ñun ñi ñëpp ñoo ko loolu lañ bokk muy taxawaayu président Ousmane Sonko muy ku nekk ci ñun war naa taxaw taxawaayu fulla war naa may moroomam cër nañu cultiver loolu suñu diggante nañu yokk fraternité bi mënta ñàkk nag ay nit bu ñu àndee bu ñu bokkee ndey ak baay sax dañuy jote alors à plus forte raison euh, bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu buñu buñ fekkente ne leneen moo leen boole mais nag nañu góorgóorlu Ababacar Dieye merci beaucoup moi aussi je vous aime je vous aime tellement fort su ngeen ko xamoon on a l'impression que c'est une famille voilà il y a des il y a des des noms yoo xam ne dama mais j'ai l'impression de les connaître voilà j'ai l'impression que nous sommes màggandool la ça m'a njaboot donc tellement que li ñu boole dafa nekk lu sérieux lu sincère lu fort donc man suis de di delloo dire. parce que nous sommes ne non mais bon pour qui elle se prend euh, nekk fi di ñu wax wax leen ci lii wala mais comprendre mais c'est juste pour euh, euh, qu'on soit réunis voilà je j'ai même pas besoin de vous le dire am suis ci déjà taxawaay mais en tout cas am awma seen fay te xam naa ni euh, ñun ñëpp ki tax ñu koy def moom tamit bég na ci am na ci fay am na amuñu fayam euh, mais moom it amul suñu fay parce que nag wax dëgg yàlla fee mu nekk bu doon kenn su suñun ku nekk mooy sacrifié wu pour dem jëlee ko fa du fa fanaan tey waaw ndax Ousmane Sonko li muy dund kenn suñun ku nekk bu fekkoon dañ ne kay sacrifié da ngay dem jël place am parce que xam nga ni moom bu génnee am na utilité am na dayoo am na taxawaay bu mu mën a def boo xam ne xëy na yow mënoo ko def wala matee woo ko mais nag yalla dogalul lolou kon li rek lim ci man moy taxaway bi moy moy moy moy dox ci moy wax ci voilà donc lolou nak buñ ko xép buñ ko xép nañ ko nañ ko def euh, nañ ko def Khadija Aline oui je vous encourage parce que je suis avec vous et je prends mon courage aussi de vous voilà je prends aussi mon courage de vous les Khady je prends beaucoup mon courage de vous parce que quand je vois la détermination de cette jeunesse de ces hommes de ces de ses tontons de ses tata parce que nak attention de yeen xalé xawma lu ngeen fogg mais gis nga mag ni mag ni ñoo leen ëpp de <laughs> man yaayu yaayu sonko yeeg papay sonko yeeg nijaayu sonko yi may gis ñoo melni ñoo ëpp jeunesse bi waaw parents yi ñoo gëna xobé fouf ñom ñoom ndeysaan dañoo dogu ngeen may man ak ci dogu bob, ma porox ndolu foofu rek ndaxte ñambaas yaqul sër ñambaas yaqul sër pour wax ak sama moroomu jigéen ay waay seetaat leen li ngeen di def yéen sama moroomu jigéen ñi sama nawle yi sama nawle yi li ngeen di def est-ce que jar na ko di leen di jël di leen mobiliser di leen dugal ci ay car di leen fay ay junni di fay seen doomi ay junni ki trois mille ay waay pour yóbbu leen ci ay ay terrain yóbbu leen ci ay accueil yóbbu leen ci ay inauguration yóbbu leen ci leneen ak leneen ngin moo leen ko jaral bu njëkk mënon nañu wax comprendre ku leen jox xaaliss lek leen seen xaaliss la mais nak dédé arrêté leen jeex na nak ci dernière ligne droite lañ nekk lan ngeen fi jël lu ngeen mësta jël ban jooni ngeen fi lek bo xamantene yéen jooni bobu lan la leen mëna yokal dara au contraire bu fekkee yéen ànd ak ñoom bu leen nexé dem leen mais bu ngeen àndut ak ñoom ànd ak ñun nan da ngeen di dem di sol seen ay tenues uniquement pour lekk seen 3000 ak seen 5000 ah loolu amul njëriñ de parce que da ngeen leen di may doole dëgg nag ay bandi ngeen ndax gis naa leen da ngeen di encaisser ba pare su ngeen demee foofu sonkorisé <laughs> loolu tamit xeetu xeex la pour yéen ñi di sonkorisé baax na yéen continuer leen di sol t-shirt yi di dem di sonkorisé mais pour maire yi maire yi yéen laay waxal maire yéen laay waxal yéen ñi def seen musóor ñu jàpp leen di leen yóbbu ci ay inauguration geen ne pat bu ngeen pare encaissé seen junne i eh dimbale leen seen bopp dimbale seen njaboot yi mbir mi jeex na ba pare muñ leen ko parce que li ngeen di def yéen da ngeen ko xeeb yéen da ngeen foog ni du dara mais dara la parce que ñoom waxuñu ak yéen ñoom dañoo bëgg woon opinion international ne ñoom am na luñ téye ba tey te yéen xam ngeen ne ñoom téyeetuñu dara kon nag bañ leen bu dem bañ leen bu leen nangu ku leen def bataille euh, électorale xam naa ne sax du ngeen leen voté ndax yéen nangu ngeen ne du ngeen leen voté mais mobilisation yi ngeen leen di mobiliser day dalal seen xel kon nag am ngeen si aussi part de responsabilité àndoog nit ki doo ko voté ëllëg bëgg nga mu jóge fi naqar bi président Macky Sall ak mbokkam teg réew bi dëkk bi metti na marché yi da ngeen di dem boo yoree sa ñaari junni da ngay wër ban naax doo xam loo jënd doo xam loo jënd dëkk bi metti na courant yi cher na location yi cher na seen doom yaa ngi ci kër gi jàng ba yor ay mu diplôme ñoo am xëy ñii jël nañu gaal yi dem ci Nicaragua ñeneen a ñeneen neneen waa léegi nag ñu toll foo xamante ne benn moment bu ndaw moo ci des benn un mois ñu ñëw di leen mobiliser di leen jox ay cinq ak ay dix mille ngeen dem di leen mobiliser bu ngeen pare naan waa baax na ñun duñ leen voteel ma ne génn leen ci li ngeen nekk génn leen ci li ngeen nekk de <laughs> génn leen ci li ngeen nekk waaw génn leen ci li ngeen nekk waaw bañ leen loolu da ngeen leen war a won carrément ni yéen pare ngeen fi bu ko defee bu ñu defee benn ndaje am fa fukki nit dootuñu ko sax ñemet dool dooleen ci mais fekk yéen ngi rax ci seen biir di leen dooleel da ngeen leen di may fit da ngeen leen di may fit ndax gis ngeen fee waaw kay waa sud wax na ko léegi baali bu sonko gis nga Ziguinchor ak Bignona ba ngeen leen gisee xoola ay oto kese nga gis ñuy dem barewuñu ñu leen topp xa askan wi ca mbedd ma la taxaw di leen sonkoriser ba mu kon nag yéen tamit nag maman yi ah maman yi dëgg la metti na mais pour ñëpp la metti ay waaye lu mu metti metti nga xiif xamal ni am na ñoo xamante ni ñu ngi ci kaso yi lu mu metti metti nga ñàkk soxla dépense wante xalaatal ni am na ñoo xamante ne xeex nañ ba faatu kon nag fi ñu toll nii dernière ligne droite bii ah rasu leen téye leen seen bopp bu leen dem bu leen leen wuyu ji bu fekkente ne ñooñu ñoom ngeen àndal ñun bañu ñu loolu ñun on est des démocrates ku ànd ak benn bokk yaakaar demal nga wuyu ji benn bokk yaakaar yaa xam ne xam nga lan moo mënul nekk mooy nga ànd ak le président Ousmane Sonko naan man moom laa bëgg waaye noo xam nga mobilisation jox la junni nga dem ca feesal leen seen ay car feesal leen seen ay salle ñu filmer seen ay film yóbbu leen France bu ko defee ñoom li ñu bëgg def ëllëg mooy seen sàcc gi ñu bëgg a faire ko dañ koy layal attention premier tour élection bi mo nek du jeu ni ci mobilisation kon leen ci li leen ci li affaire bi du ci dem vote bi de du xaar ba dem ba ci vote bi kessé fi la commencé lu ngeen ci lan ngeen di lan joxuñu leen ba fi ngeen ni di leen ay di leen sarax fan yi ngi wax ay waxu financement ay waxu lan ngeen gis nga nit ki jox tey nga ñàkk benn fukki junni muñ ko mu metti fukki junni am na fu mu xaj de waaye nga xalaat ni fukki junni bii bu ma ko jël garaawul ah du ma ko jël amul problème mais naa muñ bu subaa nga am ay millions wallay moo gën nga lekk sukki junni bi waaye ca dootoo gis leneen dootoo gis leneen xam naa ni li tax ngeen def ko yéen jàpp ngeen ni du dara mais dara la nag dara la de dara la dara la dara la fi nek ni nak mom boycott len ndaje yi nag parce que nak wax deug yalla xalé yi ñom ñu ngi def lu ñu mën xalé yi ñi nga xamni sax dañuy dem dañuy dem dañuy sonkeriser ñom sax lolo tax ñuy dem te sonkeriser bu sax gis ngeen amna ko wax léegi léegi deli la wa xamna ni nak mbedd mom ko ay nit ñuy dox mom nga jox leen si t-shirt moom munoo leen ba len di wax lenen bokku tak ay stade ak yoy wante nak mama papa tata mak ñi yéen ci kër gi arrêté len li ngeen nek génn leen ci li ngeen nekk parce que nag dinaa leen xamal de ñaari junni yi leen jox ngeen jël ko na ngeen xam ni mu ngi leen di xañ seen i million ci kanam bañ leen lan moo fi des jeex na ba noppi jeex na ba noppi période pré campagne lañ nekk ak période du campagne ñu diggante tey jii mooy lan bisu tey bi balaa moo ñëwaat dina fekk ñu ne ci campagne bay waaj a voté matul sax weer kon na ku muñ ay at nga mun ko ndóol mun ko ñàkk mun ko ay problème mun ko ñàkk xëy mun ko euh, ñàkk financement mun ko leneen ak leneen nga mën a continuer di muñ ku ñu financé woon nag mën ngaa toog lan la kenn da leen a mën a napp ñoom pare nañu gëm leen loolu ah gëm leen loolu donc nag gëm leen loolu yéen maman yi ngeen génn ci di ngeen nekk bu leen demat ci seen ay di leen ko feesal di leen may ay lay ñu naan noo gis nga kii ni mu mobiliser Masamba am na fii ma fekk ñu amuñu dara suñu ay nit kese ñoo fa nekk dégg toog leen ngeen bañ bu njëkk nag daan nañ leen wax bu njëkk daan nañ leen wax ku leen jox xaalis lekk leen seen xaalis la waaye loolu da fekk nekkul woon ci contexte bi ñu nekk mooy financement yi waaye léegi nag loolu jeex na dégg loolu jeex na diggante weer kese moo fi des matul sax weer kon ñun ñëpp nañ bokku muñ muñ bi takk suñu ay ndëgg takk suñuy biir dundee suñu jom ak suñu ngor nañu dundee suñu jom ak sunu ngor parce que loolu lañ dundee woon ba léegi waaye ñu leen di yóbbu di jox ay junni ak i 4000 ak i 3000 ak i 10000 ngeen këndëng këndëng gi dox ba sonn feebar kese la leen ciy feebar képp képp képp seet bi dugg leen ah leneen ak leneen dugg leen génn leen ci loolu bàyyi leen leen ak seen bopp lan la dañuy dem ñoom gëm leen ko de gëm leen ko xataraayu national bi yëpp ñoom xam nañ ñu pare nañ ci kon maa ngi ko yemale foofu guddi na euh, léegi maa ngi xaar yeneen live ya ah. pour vous dire rek je suis à côté je mais je reste à côté. Hein? Euh, merci beaucoup à tout le monde et puis euh, bonne fin de soirée et puis bonne nuit. Bye bye. Merci. Merci.